amma nasma awladi jërina awladi jërina balay sa wayaati yasmi awlaadi jërina seydil mamaranta sali Mbàkke yow mi defoon xaatimul anbiyaay yaa woon muhammadul makki dellu yabal muhammadul bakiyu kale dafa xureysin ak adnaani kile dafar bidaani ak sudaani kale men yu neen ye seen kemaan ya kile dafal qawsi seen xarbaax makka kilee ron Tuuba yoraale Mbakke këlee taw ba xaw toolab sunna kilee fi ñëw bayaatan toolab sunna këlee ra ñaane Makka jëm kilee ra Mbakke jëm ci diine këlee waroon jaal buraax jëm asamaaw kilee waroon ca ya noon ya di ko noonam aboojaal badal kilee tuubalam noonam tabacul gobar kalee fi waataan xuraan bil wey kilee ko bindul wasal kaamiliin billaahi kooka xayrul anbiyaa'i wallaahi kii mooy xayrul awliyaa'i billaahi kooka xayrul anbiyaa'i wallaahi kii mooy xayrul awliyaa'i maa ngi dagaan sëriñ bi ndax mu may ma ci dara jaam lu tax nekk xam ma bàyyi njàmm kene ngir man na ma defal ngërëm ba ma te man na ma leel ba yàlla fal ma te bu neexoon mu defal ma xar baax borom tuuba suma boneyit ko doy naak baax te bu neexoon tey mu defal ma bayre baay Muusaa ne ma siiwa siiw ba mel ma mat kayre te bu neexoon tey ma raw mbay jaxati ngir moo ko joon la ma ni moo maay joxati kenn mënu laa kañ yiw si géej ju naxati sang bi lu ne waxoon nañ la te maa ngi waxati yow mi janok sang bi waay laa del ma caabi xej ji yoroon jébbal ma seetal li gën man te far yërëm ma te bul ma nattu bul ma rey wiraas ma sëriñ mi o man ma maaw te ngir ma ngir gumba laa jiitamoon ma buur ba te pakk buñ ma bëgge fel buddil ma baay njaama kene borom Tuubaa te bépp bunt buñ ma bëgg a xañ baddil ma ubbil ma bunt ya wey tijjil ma te bépp bunt bu ma dox tëjël ma sëriñ bi te barakat bu may la jàggil ma jàmmee kene bu ne ndërëm bi bëgg jug joggil ma te mu may bëgg a ñaan ma yokkal ma saafani mu wey fenqal ma loo natolanta gaaya yi nottil ma borom jumaa ji loo noroloon fi des sottil ma sëriñ mi ngir yàlla sarax musulma tëbul ma jomb jeexaloo nattil ma saree neex ga tee nga far mareel wan ma saxar kanam ba far ma muññal saree neex ga tee nga far mareel wan ma saxar kanam ba far ma muññal foo jublu yàlla jublu fa fa mbër ma foo dadlu yàlla sotti fa fa mbir ma nangul sama liggéey fa bal nangul ma joxal ma yeneen be mu jox ko mbër ma su ma naxee tànqal sa ndox mi jar ma te saa su may bëgg a defee nu jër ma dama dama xoon nga far mandal ma te géej gi dey tiltee nga far mandal ma ndegam dama ayib nga far defar ma sëriñ mi ndegam dama tooñte nga lay tafarle ma dadaaleel kuréy sandarma borom ji maaji kon man nga ma musal ci ak tandarma awo ka dadaaleel kuréy sandarma kon man nga ma musal ci ak tandarma te xawlu naa yaa xam la gën natal ma la ma wax ak la ma waxul defal ma xaala deexul xadiimil mbakiyu li xaaliqi tafsiru amadi Diop Dagana wala dun seyxi Muhammadu Lamin Diop imaamun jami fi masjidi Jurbel biaasin abiyal borom jumaa ji ne ko alkelkelul yawma mini saarama jooba kar an li taw diili xiili amadan jooba ina خاب خاب تاثار سابود فلن يسيل لدينا أول ما جوب لكن علمت بأن الله مالك النعمة ينت قاد أمر كان مأجوبا فابلو يا إلهي نيل مطلبي وافتلو كل باب كان مأجوبا yooye béy la defa njox baayama du mi di goon ci njaareem te soppoon daam teeg booba rabbi bi jaay Mustafa wa man duru فلا سهل من خروج من دري لا إله إلا الله أبو رجال الله كن لا إله إلا الله أبو رجال nga yaram la ilaha illallah Seex Ibrahima abu rijaalu naaxi kenn nga la ilaha illallah abu rijaalu naaxi bu dooneen jàll noon xawma looy guddi loo seexibe billaahi waaje diiwaan lay tere yaram laa ilaaha illallaah abu rijaal